أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu du ñu deñ di ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala toll ba tey ci suratul baqara di jël tey ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala aya 259 mu nekk benn aaya boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy jaam bi dafa war a gëm loo xam ne mën naa nekk moo xam loolu xelam daj na ne mën naa nekk moo xam xelam daju ko rawatina nag su ko boroomam xamalee ne mbir moomu lu mën a nekk la ki la bind moom la sàkk la su la xamalee ne mën naa amal dara loolu yow waratoo ci am sikki sàkk waratoo cee déngi-déngi da nga war a def istislaam ci loolu mooy nga jébbulu sa xel dal nga gëm continuer sa liggéey ñaareel bi mooy azimu qudratullahi taala bi xaysu la yajizuhu taala shay wa huwa ala kulli shayin qadir aaya bi ñu jël tey jullit bi daf cee war a jàngee jël ci ne borom bi subhaanahu wa taala kattanam ak màggaayam ak mën-mënam wees na fu nekk yàlla tëlewul dara jàmm mooy tële amma borom bi subhaanahu wa taala lépp la mën moo tax nga dégg mu ne la wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën doomu aadama kay moom ngay wax lii mu ne man de mënuma ci dara wala tële naa ci waaye yàlla ah yàlla loolu jomb na ko ndax lan mooy ku mat ki doomu aadama nag matul dafa manqué yàlla mooy ki mat mooy ki mën mooy ki xam maanaam lu tax yàlla mën lépp mooy bépp melokaan boo jël buy wone ne ki mën lépp yàlla melokaan yooyu yëpp la yor su jëfee dara da ngay xool jëf jooju nga gis ci xam-xamam ni lii boroom xam-xam moo ko mën xoolal sa bopp bu fi anfusikum soo xoolee sa bopp nga xam ne ki la bind kii kii ku mën la soo xoolee asamaan nga xam ne kii ki ko bind am na xam-xam kon ku mën la boroom kàttan la mën naa yàlla lépp lu mu defar rek boo ko xoolee da ngay gis ci biir léppam kon su ne man mën naa lépp jarul ngay déngi-déngi loolu day feeñ tey ci adar su tey bi ñaareel mooy subutul baat baatil axir wa taqririhi ëllëg alaxira aaya aaya bi ñuy jàng tey day wane ne alaxira ëllëg lu sax la lu mën a ne la alaxira dafa mën a nekk te luy nekk la ndax yàlla koy nekkal te su ko nekkalee mu nekk yàlla moom moom àddina moom moom alaxira su ne bisu alaxira ngi ñëw tudde ko yowmul axir kon jullit bi dara waru ko lu dul mu gëm ne ëllëg li borom bi wax subhaanahu wa taala te mooy alaxira day am day am ñeenteel mooy wilayatullahi taala lil abdil mumin attaqi far gi yàlla far ak jaam bi gëm bi ragal yàlla yàlla dafa far ak ñooñu jàngeen yàlla mu ne inna allaha maal muttaqin wilayatullahi yàlla dafa allié far ànd lil abdi ak jaam ban jaam at taqi bu ragal yàlla loolu te jallat day feeñ fi ishaabi zulmati allati zaharat ala qalbi almumin loolu day feeñ bés bu nekk borom bi subhanahu wa taala feeñal gi muy feeñal ci xolu jullit bi gëm yàlla mu xam ne yàlla rekk a mën ne inna allah ala kulli shay'in qadir bi isti bi istiaabihi qudratullahi taala ala ihyai l qaria xoola sunu borom subhanahu wa taala buñ duggee ci aaya bi di ngeen gis kàttanam ci mu delloo si dundalaat dëkk wala mu delloo si dundalaat nit nit ku dee yàlla dekkalaat ko loolu yàlla rek moo ko mën bi àddina bi commencé ba léegi lu ne di nga ko dégg waaye ku dekkil baayam nga nekk médecin professionnel borom xam-xam sa baay dee ñii nga ñëw dugal ko laboratoire indiwaat ko kan ma fi gis loolu nga nekk waliyu wala muqaddam wala nga nekk cheikh wala nga nekk waliyu wala nga nekk yonent sa taalibe dee nga indiwaat ko yàlla rek te ñi koy def sax yonent yi ko daan def lan la ñuy wax bi iznillah bi iznillah ki koy def danaan bi iznillah ci kattanu yàlla mu daal di nekk kon yàlla la kon sunu borom subhanahu wa taala day feeñ tey mbokk yi ne moom rek la doomu aadama mënul ku tële la aaya boobu la ñuy jël tey mooy aaya 259 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنا يهيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العزام كيف ننسزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يقول المولى جل وعلا أو كالذي مر على قرية xoolal waa ji nga xam ne wala mi ngi mel ne waa ji nga xam ne dafa romb benn dëkk histoire la benn waay boo xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ci ay mbiram lu bare bare bari bari waaye li ëpp li lëng mooy dañu ne waa ji moom mooy Uzayr Uzayr Uzayru xëy na gàddu mbaamam def ci ay bagaasam di tukki romb traversé ay kilomètres dugg ci ay xur yéeg ay montagne romb benn dëkk dëkk baa ngi màbb lépp lu taxaw amul lépp daanu nit ñaa ngi dee amul dara luy dund ci dëkk bi xaawiya ala ruusiha xam ngeen luy loolu dëkk kër bu fondement bi daanoo lu loo loo ci dégg nit bu tànk yi da dammee lu muy def dëkk bi yëpp fondement bi lañ dàngal dañoo yëngal suuf si walla donn lañ ci dóor lépp rasé xaawiya ala urusiha bi mu rombee dëkk bi moom Uzeyr xelam daal di xalaat qaala anna yuhyi hadihi llahu baada mawtiha waaw lii naka la ko yàlla di dekkile waaw lii naka la ko yàlla di defaraate ndeysaan lu tax parce que moom doomu aadama la doomu aadama mooy yor alal alal ji yàqu wala kër mu yàqu wala dara mu yàqu dootu ko mun defar parce que moom amul kattanam moom nag borom bi di ñu nettali marra ala qariya romb na benn dëkk li tax suñu borom subhanahu wa taala li ëpp ci quran du wax turu dëkk yi du wax ban temps la woon ban bis la woon ban weer la woon loolu bëriwul ci alxuraan de wala am na ci voilà daf lay wan ne lii am fii mën naa répété waat mën ngaa romb léegi benn dëkk xaawiya ala urusiha chaque jour histoire bi am fii yàlla mën na ko répété waat fee suba te kenn du ci mun dërëm pour nit ñi bàyyi xel lool ba mu rombee dëkk ba dëkk baa nga wéet ca ñi ci dëkk kenn dëkkatu fa saaqita dafa wadd fi mu daanoo nag moom dëkk bi mooy ala mabaniha ci fondement ya la moo daanu qaala almaaru biha ki romb dëkk ba gis nga kii daa bañ a tudd tur parce que yàlla waxu ko diw la moo tax yenn saa yi ci borom xam-xam yi ci seen maandute su yàlla waxul diw la ñoom dañ naan comme yàlla waxul kan la ah mais léeg-léeg am ci ñoom ñoo xam ne aussi ci xam-xam yi ñu am ñu ne diw la fekk diw moomu la léeg-léeg aussi ijma suñ ne ijma mooy misaal su ma la doon jox misaal téeméeri borom xam-xam ñuy wax ci benn mbir juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñeent daan ne lii la ñaata moo des kenn kenn ki moom kon ki ñëwaat kenn ku ñëwat ginnaaw boo nee diw moomu la ànd nga ak ijma waaye moom mii dafa ne ki romb dane lu tax mu wax wax ji mooy dafa yéemu dafa waaru ala qariya bi mu rombee dëkk bi mu daanu daanu situation boobu amul luy dund lépp màbb ah posé question qaala mu ne anna naka yuhyi lay dundal haasihi lii allahu yàlla yàlla nan lay dundale waatee lii ndax moom ndeysaan xelu doom doomu aadama la moom jaam la affaire bi dépassé na ko mi ngi mel ne yenn saa yi sax mën ngaa gis benn tabax nga yéemu ne lii nan ñoo ko tabax lii kan moo ko defar ku defar lii yow da ngay waaru ñu ne la kii moo na na dugg yow yaa defar lii non non du kii gis nga moom it romb na dëkk bi dëkk bi këpp amul lu taxaw lépp a màbb amul luy dund lépp a dee mu ne anna yuhyi naka la yàlla di dundale haasihi lii naka la ko yàlla di defaraatee allahu akbar song na njàkk bi lay song na mbër anna naka yuh yi lay dundalee haasihi lii allahu yàlla baada mawtiha ginnaaw ba mu deewee ci ci lu logique lu nit ñu xam mooy lu dee pare nañ ci wala ah lu dee wala wala parewu leen ci lu dee lu ne rek dañ koy génnee moo tax moom mu ne naka la yàlla di dekkalaatee lii dee bi mu waxee loolu rek fa amaatahullah yàlla daal di koy rey foofu mu ko waxee yàlla boole ko ci waaw li waa ji waxoon defoon rey juróom-ñetti fukki nit juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent dem ci benn déedéet demul ci boroom xam-xam de dafa dem ci benn waay ñu bëri dañ naan boroom xam-xam hadis bi waxul loolu de ata ila abidin dafa ñëw ci benn waay buy jaamu yàlla rek di julli di woor mu ne ko man damaa rey juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ma bëgg a tuub ndax bu ma tuubee yàlla dina ma baal mu ne ko déedéet mu rey ko bi mu ko rey ba pare nag zahaba ila aalim mu dem ci borom xam-xam gis nga borom xam-xam ak jullikat du benn mu dem ne ko damaa reyoon juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ma bëgg a tuub ma laaj ko benn waay benn jaamukatu yàlla mu ne ma mu ne ma mënumaa tuub ma rey ko léegi téeméer lañ da yow nag ndax mën naa tuub waa ñu ne ko waaw ñu bëri bu ñu waxee foofu da ngay gis ku ree dafa ne dafa ne waa ji daa ragal déedéet déggu leen xadis dafa ne ata ila aalim ci borom xam-xam la ñëw léegi bu njëkk bu demul woon ci borom xam-xam kii xam na ndax at tawbatu yajubbu maa qablaha ku tuub yàlla da lay baal kii xam na kii xamul moo tax mu ne ko boo tuubee yàlla baal la ah waaye nag dafa am charte li ma bëgg a wax foofu rek hadis bi taxumaa jóg waaye bu njëkk bi moo ma tax a jóg waa ji dafa wax li yàlla rey ko bàyyiwu ko sax mu jéggi mètre dafa ne lii naka la ko yàlla dekkilee rek fa amaatahullah yàlla rey ko mu faatu allahu akbar yàlla won ko kàttanam moom moom balaa dara di xew yàlla won ko mooy kan comme day sot wala day jéem a solidarité ñu boole ko ci waaw naka la yàlla di dekkilee lii yàlla ne ko bismillah mut mu faatu fa amaatahu llahu yàlla rey ko waaye xam ngeen luy kéemtaan yàlla rey na ko mi atu amin téeméeri at Uzeyru dee tëdd foofu mu tëdd moom mbaamam ak bagaasam jabar yi mu bàyyi woon ginnaaw doom yi jabar ja dee na xale ya màgg nañ ba màgget ba takki ay jabar ba amay doom ba màgget téeméeri at Uzeyru moom ma nga tëdd nit ñi jàpp ne Uzeyru dey ah xanaa moom fa mu tukki woon dee na fa kenn xalaatatu ko sax ci àdduna téeméeri at koo gisul ku tukki ku la tàggu sa doom ji la tàggu téeméeri at damaa tukki est-ce que yow dina la fekkaat est-ce que di nga xalaat ne mu ngi dund waaye xoolal yàlla mi atu am la yàlla wax fii moom daf ko wax téeméeri at ñi mu bàyyi woon ginnaaw ñëpp dee nañ mag ña xale ya màgget nañ daanaka am nañ ay soxna ba mag ñoom sekk liir ya judduwaat daanaka ah léegi nag soob na yàlla yàlla day jàngal Uzeyru daf koy wan ne moom mooy borom kàttan allahu subhanahu wa taala moom rek mooy borom kàttan moo tax nit ñi feek delluwuñ ci yàlla feek jànguñu alquran duñ bàyyi bokkaale parce que il faut ñu jël yàlla di ko denda leeg leneen ak di ko yàlla subhanahu wa taala ëpp na ñu koy denda leeg dara parce que li mu mën kenn mënu li muy def kenn du ko def xel sax xalaatul jéem a li yàlla mën ba ñuy jël doomu aadama di ko dendal ak yàlla subhanahu wa taala jallat qudratullah waa ji wax loolu ne naka la yàlla di dekkilee li yàlla rey ko fa amaatahu llah yàlla daal di koy rey ndeysaan parce que yàlla dee ci loxoom la nekk comme ci loxoom la nekk nag moo ko mën mooy borom dee yàlla daal di koy rey fa amaatahu llah ñaata mi ata amin téeméeri at lu ko yàlla reyee ba doomam yi daal di faatu jabar ja sët yi màgget yàlla bàyyi ba mu am téeméeri at summa après baasahu yàlla dekkil ko waaw yàlla ne ko jógal mu daal di jóg bi mu jógee xaala yàlla ne ko kam labista ñaata at nga fi sax xaala mu ne labistu yow man man kay benn bis rek laa fi ne yaa ma yendu rek yow man aw baada yawmin wala genn wàllu bis mu ngi mel ne dama fay ñëw sept heures ba six heures sept heures ci suba ba six heures ci ngoon mooy yowm wala ma ñëw fi baada yowm après midi laa fi ñëw fekk moom lu mu fi def téeméeri at allahu akbar gis ngeen moo tax dund moo tax dund àdduna ci yàlla amul valeur lu tax inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun ñun sunu junni at mooy benn fan ci yàlla déggu leen wax bi de junni at ñun sunu compté ba mu nekk junni at mooy benn fan ci allahu subhanahu wa taala loolu moo tax alquran di la wax ne bu yowmal qiyaam jotee ñi dee tey ñi dee depuis aadama ba fii nu toll nii ba yowmal qiyaam di jot su leen malaaka yi ne ci biir bàmmeel jóg leen ñu jóg ñu ne leen ñaata at ngeen fi nekk lu ñuy wax in labis naa illaa yowman benn fan laa fi am fekk waa ji am na fi juróom-ñaar fukki at mu ne benn fan laa fa def dee ñenn ñi lu ñuy wax lam yalbathu illa asiyatan man de wax dëgg yàlla saxuma fa lu dul benn suba duha ñenn ñi man benn ngoon laa fa am dee damaa judd rek dee fekk waa ji am na fi juróom fukki at moo tax yonent bi ne àdduna bu amoon valeur yéeféer du fi naan guuxu ndox yonent bi gis na mbëtt mu dee mooy bar loolu ngeen naan bar mu ne leen bar bii moo ëpp valeur àdduna yonent bi fekk nañ ko mu tëdd njaganaayoo basang bu bu tudd tagar wow koŋ bi Omar ne tëll yonent bi jóg di ko nuyu jox ko loxo Omar seen mbaggi yonent bi faar yi mi ngi dereetal ndax basang bi ni mu wooyee Omar dugg magasin wu yonent bi fekk fa dara ndax yonent bi daan toog weer ci du tàkk këram Omar dugg biir ne yëpp gisul lu mu lekk mu gis yonent mu ngi tëdd basang bi mu tëdd mu ngi marqué ci faar yi Omar ñëw ne yonent doo bàyyi ma woo saxaaba yi ku nekk indi mbàjjam bi muy sàngoo wala bi muy lal ñu lala la ko ba mu nooy nga tëdd ci lan la yonent bi wax Omar maali wali dunia moo Omar man lu ma booleeg adduna man adduna taxu maa jóg maali wali dunia ma ana illa ka raakibin istazalla taxta sajara falamma qaama tarakaha maa ngi mel ne benn waaye bu doon tukki jaar ci yoon sonn gis garab bu féex mu toog noppalu après mu jóg dem ku toog noppalu ci garab boo jógee dem da nga yóbbaale garab gi da ngay dagg ker gi yóbbaale yàgg-yàgg boo jógee dem da nga fay bàyyi yonent bi nee na Omar man nii laa mel ak àdduna moo tax ñi xam lépp àdduna du leen yàqal alaxira jàng ngeen alquran yàlla mu ne walal axiratu xayrun wa abqa alaxira gële ngeen di gis di ko dégg moo gën àdduna de ndax moom day des àdduna du des borom bi subhanahu wa taala mu ngi misaal dundu àdduna mu ne misaalu àdduna nan la mel ah kama in anzalnaahu mu ngi mel ne benn ndox bu ma wàcce ci kaw asamaan mu daal di wàcc ci suuf suuf si rëngi-rëngi daal di sax yëf yu verte affaire yi neex nëtëx après quelque temps lépp daal di ànd mu xoñoo beneen aaya borom bi daf ñuy misaal àdduna mu ngi mu ngi mu ngi mel ne taw bu taw taw bi bu tooyee ba bàq bi tooy xale yi bu ñu xëyee lu ñuy def dañuy tabax ay étage dañuy gis xale yi tabax tabax tabax ba jël ay bant bale def ci ay këyit daal def ay drapeau def lu nekk mais bu naaj bi tàngee ba ñu woo leen añ nu ñuy def kër yooyu ah dañ koy moxoñi yonent bi noonu yàlla noonu la ñu messaale àdduna moo tax àdduna amul njëriñ gis ngeen waa ji bi ko yàlla dékkilee ne ko kam labista ñaata at nga fa sax loo fi sax lan la tont mu ne yow man benn jour aw baada yowm wala benn genn wàllu jour allahu akbar ci waajoo xam ne lu mu fi nekk ah miatu am téeméeri at normalement bu benn xar dee woon fenn ñu sànni ko ci àll bi apa pare ñaata fan la fa war a def kenn dootu ko fa fekkaat minimum weer dafi gonflé toj fi sax yi lekk ko ay quelque temps nga gis yax yi suñu yàggee tuuti doo fa fekkati yax yi say xoola kii moom téeméeri at fan la mujj yàlla dekkil ko téeméeri at xanaa yax yi waroon naa fënax xanaa waroon naa nëb waaye yàlla rey ko dekkil ko bi ko yàlla dekkilee yàlla ne ko loo fi def lu mu wax benn fan laa fa def walla benn ngoon laa fa def lan moo tax gisul ci yaramam xanaa wax wax dëgg yàlla lu nëb boog walla lu lu moxoñoo lu koy wane ne yow deewoon nga moom bi mu dekkee yére bi sax yàquwul amul lenn luy wane ne moom mii daa deewoon munul gëm ne dafa deewoon waaye lan la ko yàlla tont yàlla na ko li wóor tey mbir qaala bal mooy li fi ne wóor tey mbir labista sax nga fii ci place bi miata am téeméeri at nekk nga ko fi fii nekk nga fi téeméeri at téeméeri at nekk nga ko fi xam nga lu lay koy woon mu ne ah man kay est-ce que nekk naa fi téeméeri at ah man man la benn suba wala benn ngoon nga ni ma téeméeri at ah yàlla ne ko waa bàyyi ma woon la lu lay wane téeméeri at nga fi def fanzur xoolal ila taamika ci sa lekk bi nga yóbbaale woon ndeysaan yàlla mooy ngand mbokk yi ku dee ko am téeméeri at xanaa raisin ak banaana ak pomme bi nga yóbbaale woon bi ngay tukki wala cere bi wala njóor ndi mi wala soow mi wala mbuusu ndox mi kooku lu ci xel xalaat ah ah non du warul yem ci yàqu rek yaa ne ko fanzur xoolal ila taamika ci sa ñam bi nga yóbbaale woon lam yatasannax foroxul waxuma laa ak yàqu waaye daa foroxul sax bu doon dëxin la foroxul xam ngeen dëxin moom mooy boo ko fanaanoo bërsëtee rek ndax gars yi nee nañ daa am netetu moo tax bu xëyee day forox waaye yàlla ne ko dëxin bi moom lam yatasannax foroxul lekk bi maanaam yàquwul allahu akbar waa léegi téeméeri at loolu ban firgo lañ ko dencoon ndeysaan technicien yi mun nañ defar firgo boobu wala ñuy defar bool bu boo bool boo xam ne dañ ko tuddee quatre lan vingt quatre heures am na ay bool yoo xam ne vingt quatre heures boo ci defee lekk wala ay thermos yoo xam ne vingt quatre heures boo ci defee café xoolal kii moom yàlla dugalu ko ci thermos dugalu ko ci bool vingt quatre heures dugalu ko ci firgo ci àll la nekk mu dee yàlla mu ne ko sa lekk baa ngi ne foroxul unzur xoolal ila taamika ci sa ñam mi nga yóbbaale woon wa sharabika ak naan gi mu ne ko mu ne ko lam yatasanna soppeekuwul foroxul ni mu meloon la mel allahu akbar yemu fa de mu ne ko wanzur xoolal ilaa ximaarika ci sa mbaam mi nga yóbbaale woon ndeysaan dangay woon ne nit ñu baax ñi boroom xam-xam dañ naan waa ji yonent la ñii ne du yonent Uzeyru am na ñu ne yonent la ñenn ñi ne du yonent bu dee yonent la alhamdulilah bu dee du yonent bokk nit ku baax la woon waaye xoola waa ju baax ji xooleen gaa yu baax yi ñoom suufe suufelu ñoom ngand ngandlu ba ci yonent yàlla Muhammad da daan war mbaam bu neexoon mu war gëléem wala bu neexoon yoon bi du war gëléem wala mu war fas bu ne woon saxaaba yi seet leen Medina ak Màkka ak golf bi gëléem gu fi gën a rafet ngeen indil moo ko saxaaba yi dinañ ko indi wala duñ ko indi ah ah fii benn sëriñ day wax ne man limousine laa bëgg rek taalibe yi cotisé léegi jënd ko wala wala mu nekk R plus 4 laa bëgg léegi gars yi daal di koy dóor mu daanu wallahi yonent bi bu woowoon saxaaba yi mu ne leen gëléem laa bëgg goo xam ne kenn du ko fi war ku dul man gëléem gi fi gën a rafet wallahi gaa yi indi ko keroog bi yonent bi faatoo ñu gas suuf ba mu xóot suul ko Fatima dafa jàkkaarloog Bilal ne ko waaw Bilal Bilal daal jaaxle naa Bilal ne ko yaay Fatima lu la jaaxal mu ne ko yéen xanaa seen seen yaram du daw ngeen jàpp Moustapha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gas suuf si di ko ci dugal di ko suul mu ne ko yaa Fatima innahu amrun min awamirillah lii nga gis mbir la ci mbir yàlla yi law araada abuka an najalahu ala firasi zahab aw il fidda la najalahu bayna alsamai wal ard la qumna bihi ni ko sa baay bu bëggoon bi muy dund mu ne ñu bu ma dee da ngeen ma teg ci piliyaanu or mu dem ba kaw asamaan ngeen bàyyi ma foofu mu ne wallahi kon ñu def ko waaye nag minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla nee na suuf laa tibb bind leen su ngeen dee ma dugal leen ci suuf yowmal qiyaam ma xotti suuf ngeen génn moo tax foog ñu dugal ko ci suuf si Fatima yàlla moo ko santaane gis ngeen xoola waaye yonent bi lii lépp da doon war mbaam tey di nga dégg yenn jullit naan diw du war mbaam balaa saa mu war naas xam ngeen naas mooy lan mooy nit yonent yàlla Muhammad de moom moo fi gën waaye da doon war mbaam yemul ci war mbaam de war mbaam ba pare teg ci nit di ko yóbbaale war mbaam dong doy na doyul suufe suufelu waaye yóbbaale ci encore nit tey dama leen di laaj benn laaj dama bëgg ngeen tontu ngir yàlla suñu kilifa diine yi ñu am fii fii ci Sénégal waxuma àdduna bi suñ ci indoon kenn ba Dakar teg mbaam na ko yéegal ndax dina yéeg est-ce que nit ñeme na koo fekk fii biir Dakar ne ko dama lay indil mbaam dama lay indil mbaam addiya wala nga yor mbaam mi indi ko di ko indi ci kër gi bë bëkki ne ñi il faut jëme mbaam mi ngay laa laa ko indi mun la dóor yi pourtant Muhammad da doon war mbaam sallallahu te moo fi gën xayrun naas maa xalaqa al ilahu wala tura basalan yuraka muhammadin bayna al wara te terewul da doon war mbaam laa ilaha illallah na leen yàlla aar maanaam moom dafa jàngale ne àdduna nit dafa war a suufi xoolal nit ñu baax ñi sax dañ doon war ay mbaam mbooleem yonent yi da ngay dégg ñu ne war nañ mbaam lu tax parce que dañuy wane seen bopp parce que yàlla moo leen yónni ñun tey mënuñu am mënuñu am kilifa bu war mbaam mënuñu ko am xanaa mbaam gàcce la kon war mbaam gàcce la ah ñun ñii tey kuñ ci mayoon mbaam fii Dakar doo ko yar sa kër nee naan dencal ma ko dëkk ba mbaam fii waaye yow fii di Dakar ñu sommes au vingt-et-unième siècle nga yoon non affaire yi xewi na ay affaire mbaam xewi na allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam non du question xewi waaye yonent bi dafay fekk mbaam fekk fi leneen lu dul mbaam fekk na fi gëléem fekk na fi fas fekk na fi waaye mu war mbaam ñe mu ci waaye mu ci yóbbaale ay nit parce que loolu mooy wane ne yàlla moo ko yónni wala Uzeyru mi dafa war mbaam lu muy tukki moom it yërul gëléem lii mooy wane ne ñii ay nit ñu baax lañ woon yàlla mu ne ko fanzur xoolal ila ximaarika ci sa mbaam mbaam nag début l'islam daganoon na nit ñi doon nañ ko lekk kañ la mbaam aram ah Xaybar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax benn saxaaba ne ko wooteel ci kaw nga wax ñaar aram na mbaam ak sëyu yóbbal lii si ay di def dëkk boo wàcc ut jabar même boo fay am cinq jours nga ut jabar boo ñibbee fasak cinq jours loolu daa araam ah dëkk boo wàcc laa di fa def cinq jours ah diine ñële lañ jël rek loolu dafa araam sëy yóbbal keroog la ko yonent bi araamal ak mbaam mbaam sëf mooy mbaam kër keroog lañ ko araamal mbaam lépp ma araam der bi daa araam nefere yi araam yàpp bi xaraam yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ay jullit fu ñu toog ba jóg waxuñu fa diine place boobu méddum mbaam la te mbaam daaraamoon bu njëkk bi muy dund rawatina bu dee léegi nag mu dee ñu ne la lekkal yonent bi nee na fépp fu ngeen toog ba jóg woo leen yàlla nee na yonent nee na place boobu ngeen toog méddum mbaam la te mbaam araamoon na bi muy dund nga lekk léegi nag mu médd encore nga bu koo lekk yàlla ne ko wanzur xoolal ila ximaarika ci sa mbaam mi mu xool gis mbaam ba yàqoteeku na der ba fënëx na kawar yi tasaaroo na yàpp yi ñoppatiku na lépp mbaam mi yàqu na ah yàlla ne ko nekk xoolal bu baax mbaam mi xam nga lu tax Uzeyru ma rey la téeméeri at denc sa lekk gi naan gi ak lekk gi yàquwut sa mbaam mii nga waroon ma nëbal ko fënaxal ko yàqate ko wali najaalaka dinaa la def aayatan ngay kiimtaan linnaasi ñeel nit ñi dama la bëgg a utiliser boo ñibbee ku la gis waaru xam ne man yàlla am naa de dëgg la boo ñibbee ku la gis xam ne man yàlla amul lu ma mënul waaye benn ci sa bopp balaa ngay dem di waaru ju nit ñi di waaru ci yow yow nga waaru ba pare ci sa question bi nga laajoon sànq ne anna yuhyillahu haadihi baada mawtiha naka la yàlla di dékkilee lii yow ci sa bopp nga xam ne man mi la dekkil nii kon mën naa dekkil dëkk bi dekkil yàlla mar ko ma ko mën dekkil kenn mënu ko ko dul yàlla yàlla rek parce que dee ci loxoom la nekk ñun ñoo ñun mënuñu ko parce que ñun binduñu yàlla mi bind kay mu delloo si lim bindoon loolu yomb la yont yàlla Muusa banu Israil yàlla wan na leen kéemtaan ci waa ju ñu reyoon suratul baqara la moo tax ñu tuddee ko suratul baqara mooy nag ba lan la yàlla waxoon nañ jël lenn ci nag bi dóor ko waa ji mu dekki wala loolu du aaye ah ñu rey nag bi yenn borom xam-xam yi ñu ne genn gi lañ dagg ñenn ñi ne làmmiñ bi lañ jël ñu daal di koy dóor dóor waa ji waa ji daal di dekki ne diw mii moo ma rey xam ngeen kooku sax am na lu ñu ko dóor pour mu dékki ah kii moom amul luñ ko dóor amul luñ ko raay amul luñ ko naanal yàlla moo ko rey dékkil ko da pare di ko woon kéemtaan yàlla ne ko lii lépp soo gisee mu am dama laa bëgg a def wali najaalaka ngir ñi def la aayatan ngay kéemtaan linnaas ñeel nit ñi kéemtaan lan lay jëriñ mooy ku ko gis waaru inna fi zalika la ibratan liman yaxsha nekk na ci lii kiimtaan loo xam ne boo ko xoolee nga comprendre nga xam yàlla ñaata yoon la yàlla di wax ay kiimtaan inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wan nahaar gis nga la aayaat asamaan nit ñi duñ ci xalaat ah asamaan asamaan jeex na biddéew yi nit ñi duñ ko xool géej gi nit ñi duñ ko xool suuf si nit ñi duñ ko xool nit ñi seen bopp sax duñ xool seen bopp te yooyu yëpp aayaat la ay kéemtaan la yi wane yàlla subhanahu wa taala kàttanam ak màggaayam ak mën-mënam ne moom kenn la amul keneen li tax saxaaba yi rawoon ñu mooy ñoom xataa guddi bu ñu yeewu woon sax dañuy fàttaliku borom bi subhaana gis nga moo tax aaya boobu boo yeewoo xaaju guddi di wëlbateeku li ngay wax aaya bi inna fi xalqi samawati wal ard nekk na ci yàlla bind bi mbind asamaan ak suuf ixtilaafi leyli wan nahaar ak guddeeg bëccëg ni ñuy wuutalante la ayatin lil ulil albaab kiimtaan la ñeer borom xel yi gis nga ndax aaya boobu rek moom mooy wax kiimtaanu yàlla yi abadan xataa yàlla bind bi mu bind nit jële ko ci toq ndar ndox def ko deret def ko yàpp def ko def ko def ko def ko ba nit xëy juddu loolu sax kiimtaan la pour nit xam ne yàlla mooy yàlla doomu aadama lépp lu mu xool ci àdduna bi wa fi kulli cheyin tadullu ala annahu wahid lépp day wane lépp loo xool am na kéemtaan boo ciy gis ne yàlla kenn la sunu borom subhanahu wa taala moo tax yàlla mu ne Uzeyru mii dama la bëgg a def kéemtaan ñeel nit ñi waaye wanzur xoolal ilal izaami ci yaxi mbaam mi kayfa nun sizuha allahu akbar mbaam ma fa deewoon wa fi qiraati warsh nansuruha bu dee ci xafs kayfa nun nun sizuha hmm? bi maana nuhyiha baada mawtiha xoolal yaxi mbaam mi lu am téeméeri at yaxam nu mu war a mel ah fënax fënax ah der bi nu mu war a mel wala seey yàpp bi sidit ya butit ya mbàq ma bët ya bëñ ya weya unzur xoolal ilal izaami yax yi kayfa nunsisuha xoolal ni ma koy dekkilee allahu akbar billaay sunu borom mooy borom kàttan moo tax ku ko jaamuwul rek tooñ nga ko sunu borom moo mën wala ay yax mu ne summa topp nag suuhaa dinaa ko solal laxman yàpp yax yi kese la xool mu gis yax yaa ngi funax jékki-jékki rek yàlla jël yàpp sàng yax yi walla li gis nga fii aaya bi da leen di war naat yàlla mooy mooy mooy technicien bu doon ñun da nga jég yéen ñu ne der bi la ñuy njëkk a indi fekk der moo war a war a mujj lii rek moo war ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg la yàllaa ko yónni lan mooy njëkk yax après yax yàpp après yàpp après der doog a ñëw ci kaw muur yëpp kenn du gis lu nekk ci biir lu mu mën a doon ci kaw der bee fa nekk xoolat même bu doon yuy naaw ci aaye buy ñëwaat Ibrahima ba mu nee yàlla passé nañ ko ba mu nee yàlla damaa bëgg nga wan ma nooy dekkile ku dee yàlla ne ko xanaa gëmoo mu ne ah kay waaye pour sama conscience tranquille yàlla ne ko jëlal ginaar gi pittax mee picc mële nangam bee nga rey ko nga jaxase ko bi mu ko jaxasee mu yàlla ne ko dama nga taxaw fële nga def ko ñeenti saam comme ñeent la def ko ñeenti saam nga taxaw boo taxawee rek neel ginaar di nga gis moo jal bu nekk la fa bokk ci ginaar gi dina jóg dem daje ji ak moroomam loolu la yàlla di wax useyru fii xoolal yax yi allahu akbar xoolal nu ma koy dekkilee waaye xoolal nu ma koy solale yàpp summa nag suuha laxman yàpp la yàlla njëkkeeg der bi parce que yàpp moom moo kole ci ci yax mu ne fa lamma tabayyana lahu ba ko mbir mi leeree mu taxaw gis mbaam mi jóg taxaw ne kaj yàpp yi sàngu ci ba mu ne ŋoj sidi di yow monte der bi daan ne ŋaj mam mbaam mi daan ne ŋaax ŋeex ŋeex Uzayru daan ne sujjóot daan ne anna allaha ala kulli shay'in qadir wallahi gëm naa ne yàlla lépp la mën fa lamma tabayyana lahu ba ko mbir mi leere nañ lii moom amul lu ñuy werante amul lu ñuy sikk sàkk amul xaaral ma dem te ñëw amul wóor na wala wóorul est-ce que nangam déedéet fa lamma tabayyana lahu da koo gis ak bët fekke ko nii moom la amul lu muy werante waaw loolu olof naan weddi gis bokk ci qaala mu ne moom Uzayr aalamu xam naa bis ni ki tey ann allaha naka yàlla qadirun ku mën la ala kulli shay ci lépp lu mu mën a doon yàlla lépp la mën allahu akbar yàlla lépp la mën mbokk yi ann allaha ala kulli shayin qadir doomu aadama ngay wax mu ne ah xaaral ma jéem yàlla moom moo loolu jikko ku manqué la xaaral ba suba xaaral ñu essayer est-ce que mën naa nekk loolu melokaanu ku manqué la amma yàlla mooy ki mat loolu moo tax lépp la mën am na benn théâtre bu ngeen fi doon seetaan benn waaye bu tudd Badu mën lépp fu mu mujje bañ ko ne ràpp ci kaso bi mu téye ci giri yi ne ndekke dëgg dëgg dañ ma doon jaay waaye mënuma lépp léegi nag doomu aadama yi toll nañ ci jël melokaanu yàlla yi di ko jox ay nit diw mooy mën lépp diw mooy borom na am mu am diw mooy borom kun fay kun diw moo yor prise diw moo yor courant diw moo yor xalima gi diw loolu loolu loolu melokaanu yàlla la yàlla rek jalla wa ala moo mën lépp kenn mënul lépp loolu melokaanu yàlla la melokaan boobu kenn waru ko jox kudul yàlla benn waaye dafa jàng aaya bi inna allaha ala kulli shay'in qadir mu xool ko dëgg muy aaya alquran mu ñëw ci benn boroom xam-xam ne ko damaa jàng ci seen téere bi benn aaya waaye dama ci sikki sàkk est-ce que dëgg la mu ne ko ban aaya la mu ne ko inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën kooku ne ko loolu de dëgg la mu ne man de gëmuma ko mu ne lu tax mu daal di génne benn nen ci po ci pañeem nen mu ne lii lan la mu ne ko nen mu ne ko yàlla lépp la mën mu ne ko waaw mu ne ko na ci dugal àdduna bi te bu mu ko xar na ci dugal àdduna bi te bu mu ko toj du yàlla mën na lépp bismillah ñëwal loolu bu ñu ko waxoon fii kenn ci ñun lu muy wax waaye dimbali ma yàlla mën na lépp dama seyoon da nga bëri problème waaye boroom xam-xam yi yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla aar sàmm leen loolu moo tax ñu ne ñoom ay boroom xam-xam lañ benn waaye fekk na imaam Ahmad muy jàngale xam nga nit ñi dafa am ñu bëri problème mu ñëw ne ko cheikhana mu ne ko naam mu ne ko yàlla wax na bu ñuy julli fu ñuy jublu loolu leer na nañ kuy julli xam nga fooy jublu kuy ñaan xam nga fi ngay jublu kuy dem duus xam nga fooy jublu lii sama problème nag mooy su ma duggee géej di sangu fan laa jublu mu ne ko fi nga simmi sa yére balaa ñu koy sàcc nga ñibbee taatu neen kon dama tey géej nga simmi sa yére li gën ci yow mooy nga xool yére yi fi mu nekk boo nuuroo nga nuqi xool yére yi balaa ñu koy jël nga ñibbee yaramu neen gis ngeen kooku dafa jàng su jànguloon du mun tontu kiit bi ñu ko waxee lii lan la wax waa ji ah loolu day lu yomb la yàlla de mun na ko lu yomb la mun na ko bismillah na ko def xoola ci kaw mu xool xoola suuf mu xool mu ne def na ko mu ne ma nu mu ko defee nen baa ngi nii mu ne yàlla jël na àdduna bi dugal ko ci lu gën a tuuti nen mu ne loolal mu ne sa bët yi nu mu ci duggee mu ne bu ci duguloon doo ko gis ñu bëri dañuy yaakaar ne bët bët ñu bëree bëri dañuy yaakaar ne bët lu ngeen ci xam bët day gis image yi da cee dugg wala dugg ci bët bi mooy xëcc image bi bu koy xëcc koy jëli indi ko su dugguloon ci biir du ko doo gis di beneen bi bët lu ñuul li rek lañ ci soxla de ci lu ñuul li tamit am na lenn luñ ci soxla benn per loolu kese mooy bët bi xool nu mu tuutee mën ngaa toog fii léegi nga xool ba muy xëcc image loolu moo tax gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala ci alquran fu nekk amoon naa benn am naa benn téere buy wax assam wal basar assam nopp wal basar ak dégg ay yàlla wax ci alquran ci dégg ak gis lan lay jiital ah lan la yàlla jiital wa jaala lakum sam'a wal absar xam ngeen tax yàlla di jiital dégg ak bët nit bu juddoo automatiquement day dégg bala muy gis mu am ay fan wala ay weer boo juddoo rek dégg da ngay toog ay semaine temps yooyu gars yi génneegul pàccali ay weer xale bi du gis waaye fi nga juddoo ngay commencé dégg moo tax nopp moo yiitu bët Uzeyru mu ne yàlla léegi de leer na alamu xam naa xam gu wóor sëkk xam gu àndal ñetti aynal yaqin elmal yaqin xaqul yaqin xam naa lépp leer na nañ alamu xam naa anna allaha naka yàlla qadirun ku mën la ala kulli shay ci lépp lépp yàlla mën na ko yàlla tëlewul dara doomu aadama mooy tële parce que doomu aadama dafa manqué doomu aadama moo mënul moo taqul moo yorul amma allahu subhanahu wa taala mooy ki mën mooy borom kàttan moo mën lépp da ngay dégg gaa yi ne ku lebal yàlla ker lan la lay fay guddi gis nga dafa mën moo tax boo ko lebalee ker mu fay la guddi dafa mën yow mënoo yàlla boo ko joxee benn mu jox la man jaa bil xasanati parce que dafa mën jooju loon gerte sax nga dem ba ci àll bi nga jëmbat benn gerte ñaata la yàlla di jox parce que dafa mën yàlla buy taw lan lay taw benn bëri ko benn litre ndox yàlla li muy taw bu tawoon ba pare ñu ne ñu ne ñu ne la na nga fay facture bi kan ci ñun moo ko mën a fay parce que boo lay wan ne yàlla dafa mën moo tax lépp lu muy def du def lu ndaw boo yóbbee dugub ji tool ya buy dellusi nga xam ne ki mën laa ko dénkoon bu dee gerte la kazaalik bu dee benn grain nga jëmbat garab gi muy sax bu meññee nga xam ne ku mënoon laa ko jox bu doon ndox la muy taw nga xam ne ku mënoon laa ko jox boo demoon géej gi di nappi nga xam ne ku mën laa ko jox jouru tabaski bu jotee ñu rey xar yi ba pare xanaa xar war na manqué di après kon tabaski bii di ñëw xar warul am de wala waaye bu tabaski jotaatee day mel ne musuñu woon parce que yàlla moo ko yor yàllaay ki mën anna allaha ala kulli shay'in qadir sayid xawa rahimahullah daf ñuy jàngal di wax ne su ngeen jàngatee aaya yi ba muy jeex mu ne na ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee mooy aayab tey bi mu ngi jeexee ne yàlla ala kulli shay'in qadir kon lii lan la la war a yokk sa pas-pas ah soo gëmee ne yàlla lépp la mën lan la la war a yokk war na laa yokk wala waru laa yokk waaye nan la la war a yokkee ne yàlla lépp la mën kon yow nga xam ne yow ki nga àndal am du ko tële waratoo yox-yoxi waratoo deltu ginnaaw waratoo nooy da nga war a jublu sa boroom xam ne mooy ki mën lépp waratoo dis kenn say aajo waratoo jàmbat waratoo jaaxle waratoo kebetu ndax sa buur ala kulli shay'in qadir ala kulli shay'in qadir la la wax ala kulli shay xoolal waaye ñun pas-pas yi lañ amul jooy di jàmbat jaaxle waaru lu nekk ñu dugg ci triste lu tax parce que gëmuñu waaye inna allah ala kulli shay'in qadir loolu soo ko gëmee mu nekk pas-pas ci yow dootoo reculer dootoo deltu ginnaaw chaque jour yaa ngi ci kanam dafa am benn waay boo xam ne dañ koy jël si mu war a tukki benn tukki lislaam amul paas gaa yi ñëw ne ko da ngay dem mu ne bi iznillah da nga yor paas mu ne inna allaha ala kulli shay'in qadir ci mbooloo mi am ku ne sa paas a ngi nii war a wax déedéet inna allah ala kulli shay'in qadir am nga dépasse ci kattanu yàlla dinaa ko am léegi waaye awma man kay xaw ma fu ma koy jële la ilaha illallah way ah gis nga gëmoo yàlla des na c'est que loolu mooy problème inna allaha ala kulli shay'in qadir su nekkee ci pas-pasu jullit jullit bi dara dootul am problème xoola saxaaba yi dañu fekk koo xam ne amul lum lekk amul lum naan waaye doo ko gis ci kanamam parce que chaque jour xam na ne jant sowagul jant sowagul inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla lépp la mën kon fii la ñuy yem incha allah ba samedi bii di ñëw ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala njuumte yi yàlla nañu ko yàlla jéggal yàlla may ñu taqwa may ñu iman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu boo amee laaj